asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah tey nag waxtaan wi nga xam ne moom lañ indi tey ginnaaw bi nga xamee ne maanaam ñetti série yi mat na waxtaan la boo xam ne nag ab bataaxal la bu ñu ubbi. mooy li tubaab di wax lettre ouverte jëm ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tuddee waaraatekat yi ak imaam yi ak ñi ñuy wax sëriñ si ak képp koo xam ne kuy gëstu dëgg rek la te jëm yàlla ji képp tax waaye li jiitu loolu nag maanaam liñ ciy jiital ay kàddu sant yàlla la delloo njukkal yàlla ci lépp ndax yàlla dogal na vidéo yi am na ci nit ñoo xam ne li tàmbalee ci vidéo 1 bi ba bi nga xam ne mooy bi ci mujj am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñoo ngi koy topp te bëri na ci ñoo xam ne lu jiitu ñuy yegg sax ci ñetteelu série bi yàlla dogaloon na ci ñoom ñu yeewu ci mbir yu baree baree bari te loolu di sant yàlla gu mat sëkk ndax nit ki mën ngaa wax ay at wala mën ngaa wax ba bàyyi koo te li ngay wax kenn du ci gindeeku kenn du ci yeewoo suñuy wax gindeeku nag jubluwaay bi mooy gindeeku ci dëggub yàlla ji du gindeeku ci yoon sàngam wala ci yoon sàngam waaye gindeeku ci dëggub yàlla ji gindeeku ci yoonub yàlla di islaam di yoon wi nga xam ne raxul dara ci li ñuy wax bokkaale xana bokkaale yàlla ci jëmmam ji bokkaale wuñ yàlla ci aw yoonam bokkaale wuñ yàlla ci ay waxam te loolu lu ñuy sante yàlla la te jamono bune ñoo ngi jot ay nit ñoo xam ne yàlla dogal na ñoom yeewu nañ ca loola doonte sax li ñuy wax jamono bu ne wax yi ñun duñu ci dara ñun jottali képp ñu war yàlla mooy gindi ku ko soob di réeral ku ko soob waaye ci mbaaxam ak yërmandeem ñooñu it maanaam ngir bëgg ñoo xamal rek ne ñoom kat yeewoo nañ ci wala gindeekoo nañ ci moo tax ñu di ko def te loolu moom du ci war benn yoon ndax li am solo mooy ku déglu mbir yi ba mu leer ci yow nga wéy nag dund sab dund ko mën a leeralal ci li la wër nga leeralal ko te jëmm yàlla ji képp tax ndax dañuy wax ne mbir yi ku leer ci yow rek am nga devoiru leeral am nga warugaru leeral nga xam ne ku mu yegg ci yow ba mu leer ci yow yow am nga devoiru jottali nga xam na loolu mbir mi noonu rek la demee képp koo xam ne wax ji leer na ci yow am nga warugar jottali ko ngir ñeneen mën cee yeewu nga xam ne yow sooy waxit sa jubluwaay bu mu doon convaincre benn nit bu mu mën a doon ci kaw suuf sa jubluwaay na doon rek jottali information information bi nag ku mu yegg ci moom su nangoo diggante moom la ak boromam su bañee diggante moom la ak boromam waaye yow li am solo yow la la waroon def nga ko képp te jëm yàlla ji képp tax nga xam ne dëgg-dëgg mbir yi loolu rek moo ci am solo te loolu ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla dogal na kem niñ ko waxee woon ci vidéo yu njëkk yi vidéo yi képp ku koy topp ku mën a doon ku ne di nga yeewu ak mën a doon ku koy déglu rek di nga yeewu yow sa bopp yaay seetlul sa bopp ne ni nga daan gisee ak ni nga daan xalaatee ak ni ngay déggee lépp day soppeeku moo xam nag la nga newoon maanaam fas nga yéene jug ca wala fasoo yéene jug ci loolu moom domaine bi yàlla la waaye lu mënti xew ku yàlla namal ndimbal ku ne wax yi moom soo ko dégloo dana leer ci yow te su leeree ci yow da dëgg dëgmal li yàlla bëgg ci yow mooy li nga xam ne moom la waxal boppom ci ab téeréem loolu moom mu doon leer kon wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax baax baax ci loolu di ko delloo njukkal ci loolu it wax dëgg yàlla ci jamono bu ne ak saasu ne leneen li ci topp nag mooy li nga xam ne moo waral vidéo bi ginnaaw bi nga xamee ne maanaam ñetti série mat na kem niñ ko waxee vidéo yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam incha allah vidéo la yoo xam ne day ñëw di leeral ay mbir yoo xam ne ñun ni koy doxale ak li ci yàlla wax dafa waroo vidéo bii nag dafa doon vidéo boo xam ne dafa doon li tubaab di wax lettre ouverte muy bataaxal bu ñu ubbi jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee waaraatekat yi ak imaam yi ak ñi ñuy wax sëriñ si ak képp koo xam ne dëggug yàlla gi da koo ñor te mu koy gëstu te jëmmi yàlla ji képp tax nga xam ne liñ ci bëgg a wax lu yomb la xam nga ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee waaraatekat yeeg imam yi dafa am benn nattu bu yàlla nattoo mooy nattu di taxaw ci kanamu nit ñi di wax ak ñoom nit ñi di gàggantikoo ñu ne ci ñoom te noonu loolu lañ koy defee jubluwaay boobu la ci nit ñi am ngir di gàggantikoo ci ñoom nit nag su fekkee ne ay nit dañu lay topp di la déglu di wax ne dañuy gàggoon di wax dañuy gàggantikoo ci yow yow war ngaa fexe ba lépp looy wax mu doon loo xam ne day lu wér mooy mooy kon mu doon loo xam ne dafa dëppoo lii nga xam ne moom la yàlla waxal boppam te loolu moom du mën a nekk mukk lu dul ne nit ki dafa dellu ci waxu yàlla te loolu moom sikki amu ci te pexe amu ci te it ñooñu dañoo am responsabilité bu rëy rëy rëy rëy boo xam ne ñoom lu ëpp ci nit ki xëy na xamuñ ko wala bàyyiwuñ ko xel ndax nit su fekkee ne da ngay toog ci ay barab loolu nag yemul ci réew mi ak fu mën a doon ci àdduna bi nit ki su fekkee ne da ngaa féete ci benn barab wala nga féete ci benn place ay nit jamono bu ne moo xam ci waxtu juli wala moo xam ci ay conférence wala moo xam ci émission télé wala rajo wala lu mën a doon ay nit di la déglu di gàggantikoo ci yow nga xam ne daanaka sax luñ déglu ne dinañ ñëw laaj leen ndax loolu lu wér la wala lu wérut te yéen loo leen ca wax ñoom ñu gëm loola jàpp ne loolu luñ war a topp la gis naa ne kon yéen responsa responsabilité bi ngeen am responsabilité bu rëy la ndax am ngeen responsabilité mën a bàyyiloo xel nit ki lay dëgg am ngeen responsabilité bàyyiloo xel nit ki lu dul dëgg suñu wax dëgg ak lu dul dëgg nag lu yomb la dëgg mooy li yàlla wax ndax yàlla moo ñu xamal ne dëgg moom ci moom lay bàyyi ko لم وخنا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لي مي وخنا فما ذا بعد الحق الا الضلال يالا ما ني خمال ني دغ موم تي موم رك لاي بايكو تا ما ني وخنا تاميت لان مو نيك تي غيداو دغ دودول اك رير كون يين ني مون غينا توبلو نيت لوكاي سانك mën ngeen a toppaloo nit dëgg te dëgg moom yàlla moo ñu xamal nañu ci moom képp lay bàyyikoo yàlla nag su ci moom lay bàyyikoo mooy kon ci ab téeréem lay bàyyikoo mu doon lu wér kon wax dëgg yàlla macha allah nit ñi seeni responsabilité dafa doon responsabilité bu rëy bu mat a bàyyi xel te ñoom ci seen bopp suñ ci bàyyee xel ci wax ji xelaataat ci seen bopp xalaataat seenub yëngu xalaataat seenub doxalin xalaataat lépp lu mën a doon ci mbiri am na ci loo xam ne dina leen mën a leer naañu te danañ ko mën a xamal seen bopp ndax nit ki su fekkee ne da toog ci barab di wax ay nit di la déglu war ngaa fexe ba la ngay wax mu dëppoo la nga xam ne moom la yàlla waxal boppam war ngaa fexe ba la ngay wax mu dëppoo dëkku yàlla gi ci lu amul benn sikki war nga fexé ba la ngay wax daray par parlo wala daray bëgg lu neex nit wala daray sentu ci nit dara wala daray bëgg daraja wala daray ngistal wala daray reey bum ci feñ ndax yow kat dafa melni dafa am loy jangale te kuy jangale ku ne amna lu muy transmettre nit mën nga transmettre nit ki ak oyof comme mën nga transmettre nit ki ak reuy mën ngaa transmettre nit ki dëgg kenn mën nga koo transmettre it loo xam ne tamit du dëgg kon am na ci loo xam ne dafay lu mat a bàyyi xel te kenn ku ci ne ci yéen ñi nga xam ne yéenay yëngu ci loola soo leen xoolee li nga xam ne moom lañ xamoon ci bu jiitu mooy kenn ku cay dangay ñëw rek suñ la laajee nga ne ah diwkat nee na nàngam ci nàngam nga xam ne mii na wax yàlla nee na ci nàngam loolu moom ñun ñëpp xam nañ ne du mbir yoo xam ne dañu cee yaroon lu dul ne yenn saa yi di ko saxalee yenn wax yi rek daanaka yàlla moom ay waxam lu ñuy assaisonné suñuy wax la mooy lu ñuy saf safalee suñuy wax képp la waaye jëmmi wax ja la ca ëpp du woon yàlla nee na li ko waral nag mooy nit ñi dañoo jàppoon ne wala dañoo gëmoon ne suñ waxee ne diw mi boroom xam-xam la mooy mën na lim ay nit ñu bari nga xam ne mën a wax ne diw nee na diw nee na diw nee na diw nee na loolu lañ jàppe woon na loolu mooy xam-xam te diine moom ay diw diw diw diw diw da caa amul njëriñ ndax dañu caa bokkut diine moom benn borom la am te borom boobu yàlla képp la moom mooy ki sàkk ku dut moom koo leen ci mën a woo kum mën a doon ku ne ku ñu sàkk la li suñ borom di wax fee ne walladina tadduxuuna min dunillahi laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañ leen woo ku yàlla ñoom binduñu dara te dañ leen bind binduñu dara te dañ leen bind yàlla mu ngi ñuy jàngal ne ki ñu war a woo mooy ki bind ki bind nag du ñaar ki bind moom kenn kepp la te ki bind nga xam ne moo ñu fi indi di ñu fi liggéeyloo wàccee fi ay waxam mu doon ak gindi ci ñun digal yi ñu topp ko ba noppi na ku ko topp doo réer te doo texee di te fii ci àdduna lu ëpp ci nit ñi nga xam ne gëm nañ ñaar yooyu la moytandiku wala ñaar yooyu la ragal réer ak texee di réer fii la texee di réer te doo texee di di wax na moom ay kàddoom di ak gindeem ku ko topp doo réer te doo texee wax fa man ittabaa hudeeya fala yaddillu wala yashqay te ñun kat nit ñi comme ci mën a doon ñaar yu lay ragal waaye yàlla garanti booba ci waxam képp la ko joxe nag nee na moom ku topp ak gindeem du réer te du texee te gindeem mooy lan soo leen demee ci fële mu ne allahu nazzala axsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan mathaniya taqshahirru minhu juluudu alladina yaxshawna rabbahum summa taliinu juluuduhum wa xuluubuhum ila dikrillah lum ci teg dalika hudallahi yahdi bihi man yasha nga xam ne téeréem bi la wax ne mooy gindik yàlla gi nga xam ne mooy ce gind ko soob kon yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na ngeen féete fii ñu leen di wax na ay imaam ngeen wala di wax na ay waaraatekat ngeen nga xam ne cër yooyu lañ leen jox ci société bi ngeen di wax ne dangeen ngeen doon ñuy jàngale diine yàlla te sax loolu dëgg-dëgg ñàkk a bàyyi xel moo ko waral ndax ku ci gëstu tuuti di xam ne suñu dëkk yi li gën a yaatu ci àdduna bi li nga xam ne moo fi yegsi du li ñuy wax lislaam déedéet li fi yegsi woon lan la ab xaaj la woon ci diine mooy lu ñuy wax ahlu sunna wal jamaa seen idéologie moom lañu yaataloon ci suñu réew yi ba ci Sénégal gii ñu nekk ci la bokk ak réew yi nga xam ne moo ëpp ci àdduna bi te lislaam nekk ni ngi ni ki nga xam ne yeneen barab yi li nga li li ñuy wax chiisme moo fa nekk nga xam ne chiite yi seenum njàngale moo fa nekk waaye ñun suñ dëkk yi li ñuy wax ahlu sunna wal jamaa seenum njàngale moo fi nekk nga xam ne njàngale moo xam ne li tubaab di wax ab idéologie la nga xam ne dafa am fu mu tàmbalee ginnaaw bi yenent bi ñëwee jàngale li muy jàngale sukkandiku ci téereb yàlla ba bàyyi koo fi ginnaaw gi la ñu sos idéologie boobu li wax ahlu sunna wal jamaa suñu réew yi nag hmm. bi bi nit ñi di yaatal lislaam di dem ci dëkk yi di jàppi jaam ak xeet yooyu ci lañ fi indi xeet yooyu ci lañ fi indi gëm-gëm boobu loolu ñun ñu jàpp na loolu mooy lislaam te fekk na loolu ab idéologie la ci lislaam ndax li koy firndeel dafa bari lool ku dem gëstu ci téere yi di nga ko xamal sa bopp ci wàllu histoire waaye ku dem ci alxuraan yaa koy mën a xamal sa bopp mu leer ci bëri na lu ñuy jëf loo xam ne ak li yàlla di wax dara boolewule yéen ñi nga xam ne nag yéen a toog ci barab yooyu ñuy wax ne ay imaam ngeen wala ñuy wax ne ay waaraatekat ngeen wala ngeen di wax ne loolu ngeen yëngu te loolu responsabilité bu mag a mag a mag nekk ci ndax am na ci loo xam ne nit mën na ko xam nit kat mën na wax ne man lii laa jàngoon lii laa xamoon ba ma juddoog léegi lii laa xamoon lii laa fi fekkoon téere yi nga xam ne moom lañ may jàngaloo it ba ma ko jàng it lii laa ca fekk te man it lii laa daan jàngale loolu lu mën a nekk la waaye yàlla su ko sooboon mu bàyyi nit ñi ñu dund li dund nekk ci yooya ba dee lu mësa leeral lu jëm ci mbir yooyu waaye yàlla mu nam ñu dem ba jamono bii xeet yii di leer te jamono bii dañ leen wax ne jamonoy dëgg feeñ ci lañ toll loolu coobare yàlla la nit ñëpp maase ko nangu ak nit ñëpp maase ko bañ moo bokk yem moo ci bokk yem lu mënti xew dëgg gi day leer ku ci yàlla nam ma defal ndimbal nag lum mënoon a jàpp ak lum mënoon a nekk dana ko bàyyi dëgmal dëggu yàlla gi ndax su ci jugut mbir ma fa muy mujj ci moom dadul rafet te dadul neex loolu nag coobare yàlla du yëfu nit du yëfu kenn dogalu yàlla kenn mënu ci dara ngeen xam ne kon ci dëgg-dëgg nit ki mënoon naa wax ne lii laa jàngoon lii laa xamoon waaye soo jàngoon dara wala nga xamoon dara daan ko jàngale dem ba benn jamono suñ borom ci mbaaxam ak yërmandeem mooy yee ku ko soog mu yee nit nit ñëw toog di wax lii li muy wax lum ci wax lu ne yow soo ko déggee xam ko ndax xam ne waxul loo xam ne lu bees la la wax ci téereb yàlla la nekk donte yow jàngaluñ la woon loola wa donte yow daanoo defee noona nga dem xoolal sa bopp gis na kat kii li mu wax mooy li nekk ci téere ba donte man bokkutoo nag la ma doon def kum ci mën a doon war naa mën am njubug ne kii kat li wax loolu la yàlla wax donte ñun bokkutoo nag ñun liñ doon def ndax yàlla day nattu ab jaamam ci jamono bu ne saa su ci mbir mu ne nekkul ne nit ki da wax na gëm nga yàlla rek suñ borom bàyyi la noonu yenn saa yi dina la nattu ci mbir ndax amaana am na ñu fi jiitu dund ba dee ci gëm-gëm yooya te yàlla dogalul dara leer ci ñoom ci xeet boobu suñ ba jamono bi suñ borom dogal mbir yi tàmbali di leer loolu nag yéen ñi nga xam ne yéen a fekkee jamono bi yéen loolu ab nattu la ci yéen nga xam ne wax bi dootul nekk ci ne ah ñun kat suñuy bàyyi suñuy maam lii lañ daan def déedéet ndax yàlla lim wax fee ci alquran ne tilka ummatun lim wax ne tilka ummatun xadd xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaamaluun nga xam ne génération yoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yi wéy ñu loolu génération yee ñoom wéy nañ ñoom lañ doon jëf ñoom la ñun li ñuy jëf ñun ñun la te du yàgg mukk ba yàlla laaj ñu ñoom lañu daan jëf te nit ñi miin nañ loola soo ñëwee di leen wax ne lii la yàlla wax ñu naan la déet ñun kat suñuy bàyyi lii lañ ci miine woon wala nangam te xamuñu lan moo waral ñuy wax loola xamuñ ko déedéet te moo kat yàlla da koo jàngale yàlla dafa xam le ne seytaane dafa bokk ci li ñuy digal nit ñi suñ leen waxee ne leen ngeen a topp li yàlla wàcce ñuy wax naan ñun li ñuy topp mooy li ñuy miine li ñuy miine ci suñuy baay soo leen demee ci sootu baxara yàlla lay wax ne wala tattabihu xutwaati shaytaan innahu lakum aduwun mubin mu teg ci ne innama yaamurukum bissuui walfaxshaai wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun wa ida xiila lahum ittabihu ma anzala allahu qaalu bal nattabihu ma alfayna alayhi aabaana walaw kaana aabaahum laa yaqiluuna shay'an wala yaxtaduun xam nga yàlla dañuy xamal ne seytaane mooy digal mooy ni digal maanaam li ñuy wax ñaawteef ak mbon ak di wax ci yàlla lu ngeen xamut ak suñu leen waxee ne waaw tee ngeen a topp li yàlla wàccee ñu ne ñun kat li ñuy topp mooy li ñu miinee suñuy bàyyi donte sax seeni bàyyi xelawuñu woon te gindeeku wuñu woon ndax gindeeku moom mooy gindeeku ci waxu yàlla ndax yàlla wax na ci alquran ci téeréem bi ne wa anna haadha siraati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu subula fa tafarraxa bikum han sabilihi nga xam ne yoon wi mooy téere bi mooy siraatal mustaqim nit ki soo waxee ne comme ihdina sirat al mustaqim gindi ñu ci yoon wu jub wi yoon wu jub wi mooy lan téere bi yàlla so leen demee ba ci suuf loolu mu ngi ci suratul anam soo leen demee ba ci suuf yàlla mu ngi koy waxaat ne wax ne wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabihuhu wattaqu laallakum turhamun wax ne lii kat ab téere la bu ñu barkeel wàccee ko na ngeen ko topp tey bàyyi xel mën na am ñu yërëm leen nga xam ne loolu yàlla ci boppam moo koy waxal boppam te it ba tey téere bi ëllëg bis penc ñi nga xam ne dañoo wax ne gëm nañ yàlla du leen laaj beneen téere bu bi bii beneen téere du leen yàlla du leen laaj lan la Buxaari waxoon du leen laaj lan la Muslim waxoon du leen laaj lan la Alkaafi waxoon يالا دولن لات لان لا امام مالك وخون يالا دولن لات لان لا امام شافعي وخون دولن لات لان لا كين وخون لم نين لات موي تيري بي تلول لول لا وخون يونت بي بين كو واخاي نكو فاس تامسيك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون سيمبرام دا نكو جابال ci li nga xam ne moom lañu wax yu mu jëm ci yow xamal ko na ko yow kat yaa ngi ci yoon wu jub wi mu ne ko mu ne ko loolu ak fàtte la ci yow ak ci saw nit te it dañ leen koy laaj nga xam ne ak fàtte la ci yow ak saw nit te dañ leen koy laaj nga xam ne yàlla du ñu laaj benn téere bu dul téere bi nit ki nag di laye téere bu ñëdul laaj di wut ak moy ci téere bu ñëdul laaj su ñu waxee ab aya yalla nga sukkandiku ci waxu keneen ku dut yalla ngir bëgg sax ci leneen loolu képp ku koy def su dee borom xel la war naa xam ne la def moom defu ko kenn ku dut boppam te loolu kenn ku ci ne war na cee bàyyi xel rawatina nag koo xam nekkul rek da koy def moom boppam waaye da ciy yóbbuwaale ñeneen xam li suñ borom wax fee walladina tadduhuuna min dunillahi laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun yoo xam ne ñi nga xam ne dañ leen woo kudut yàlla ñooñu bind ñu dara te dañ leen bind mu teg ci ne amwaatun gayru axyaain wa ma yashhuruun ayaana yubaathuun te mu ne ñooñu it dee nañu nekkuñ ñuy dund te ñoom sax yéeguñu kañ leen ñoom sax yéeguñu kañ lañ leen di dekkal nga xam ne ñoom ñi nga xam ne nga xam ne nit ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy woo soo ne leen yàlla nee na ñu naan diw nee na diw nee na yàlla nee na ñooñu ñi ngeen di woo noonu dee nañu te ñooñu ñooñu ñoom seen bopp ñoom xamuñ ñoom seen bopp xamuñ kañ lañ leen di dekkal mu teg ci ne ilaahukum ilaahun waahidun فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون yàlla mu ne seen yàlla ji benn yàlla la waaye gaay yi nga xam ne gëmuñu bis bu mujj ba na seeni xool day weddi te ñoom dañuy rëylu te suñ borom mu ngi xamal ne seytaane yàlla mu ngi jàngalool ci alquran di ñu xamal seytaane ci ñan lay wàcc hal nunabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affaakin ahiim day wax ne ndax duma leen xibaar waa ndax duma leen xamal ci ñan la seytaane di wàcc mu ne seytaane day wàcc ci duuraakoon yi di bàkkaarkat yi mu ne ñooñu mooy ñan mu ne yulxuuna samaa wa aktharuhum kaadibuun wax ba dañuy sànni seenu dégg te lu ëpp ci ñoom dañuy kàcc bi muy leeral affaakin athiim ba tey da koo leeral fële ne bi mu waxee ne tilka ayatullahi natluha alayka bilxaqi fa bi ay xadisin baada allahi wa ayatihi yuminuun dafa ñëw ne waylul li kulli affaakin athiim mu ne ñooñu mooy ñan mu ne yasmahu ayatillahi tutule alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha mu ne affaak athiim yooyu mooy ñi nga xam ne cheytaane ci ñoom lay wàcc mooy ñi nga xam ne dañuy dégg aaye yàlla yoo xam ne dañ leen koo jàngal ba noppi ñu nuur ci seenu rëy ba mel ni dégguñ ko kon nga xam ne dëgg-dëgg mbir yi dëgg-dëgg fii la nekk kon kenn ku ci ne jot na ci yow nga xool say responsabilité xool li xool li nga xam ne moom moo gàll ci sa kaw xool li nga xam ne moo ci mën a juddoo sa diggante ak sa boroom ndax lépp ci nit ñi lu leen neex képp lañu xam te dëgg-dëgg jàmm jàmm ak xéewal gu dal ci dëgg képp la nekk nekkul ci leneen ci dëgg képp la nekk nekkul ci leneen te jëriñu àdduna ak jëriñu àllaaxira ci numtul ci dëgg képp la nekk nekkul ci leneen kon ñi nga xam ne suñ borom da leen xiirtal ci loola te ñu nekkoon ci loola daan ci yëngu dañu bàyyi xel ne lii ab nattu la ndax lii la xamoon lii laa doon jàng loolu loolu ku ne mën na koo comprendre waaye nag waxtu woo demee ba dajeeg nag dëggu gi yàlla war na nag léegi nga taxawaat ndax waxtu woo ko bañee day mel ni yow yàlla dalaa nattu ci mbir yow nga échoué nattu bam la nattu lii kat moo la ko jàngloo woon ci coobareem nga dem ba benn jamono mu teewal leneen lu wuuteeg la nga jàngoon te lii kat mooy ay waxam moom nga jàngoon leneen lu waroog ay waxam nga dem ba benn jamono mu indi ay waxam teg ko léegi nga war koo dendaleeg la nga jàngoon léegi nag su boobaa lan ngay xool coono bi nga dajoon ca la nga jàngoon wala lan ngay xool dëggu yàlla gi rek su dee coono ba nga dajoon rek ngay xool su boobaa luñ la mën a indil ci dëgg yi doo ko nangu ndax su boobaa da ngay xelaat na kon la ma dajoon loolu perte de temps la woon te fekk na kat loolu coobare yàlla képp la woon ci boppam xam nga yàlla moo loolu coobareem la woon ci yow nga xam ne nag lii dafa doon ay mbir yoo xam ne kenn ku ci ne da cee war di ci bàyyi xel kenn ku ci ne dafa war ci moom mu di ci xalaat ndax yàlla moo am ay dogalam yàlla moo am ay doxalinam te doxalin yooyu ak dogal yooyu moo koy teg ci moo koy teg ci liggéeykatam bu ko soob nit ki nag yàlla su ko namee defal ndimbal ak lu mu mënoon jàng ak lu mu mënoon a sonn ci mbir ak lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg su demee ba dëggug yàlla teew suy suñ borom su ko namee dimbale day xam ne ah suñ borom kat moo ma jàngaloo woon lee démb waaye lii kat mooy li dëppoog moom la ma wax su boobaa yow nga dem kat jàpp ca la ma wax lam la jàngaloo woon démb expérience ba nga ca amee ak gis-gis ak xelaatin ba nga ca jëlee nga xam ne kat lii ak lii dara boolewu leen te yow sa bopp di nga mën a xamal sa bopp ñaari ban moo ci gën ci mbindeef mi ban moo ci gën ci jaamu yàlla bi ak ku mën a doon ku nga xamne lolu kenn ku ci ne yow yaa koy mën xamal sa bop ndax su fekke ne yoonent bi suñ suñ delo ci alquran di xol mom suñ borom ni muy waxe mom suñ ko lajaan nga xol mom naka la daan waxe comme suñ borom su waxe ci misal lu melni ni yasalunaka anil khamri wal maisir suñ borom da nan ko xul mu wax yasalunaka anil lahillati suñ borom da nan ko xul suñ borom su waxé ne fi dunya wal axira wa yasalunaka 'anil yataame suñ borom nako ko xul nga xamné jamono bu ne da ngay ni gis ne mom suñ ko laajee suñ borom nan ko xul mu doga wax wa yasalunaka 'anil ruhi mu ne xul nga xamné jamono bu ci ne rek da ngay gis xul la suñ borom di wax ngir mom mu mëna xam deug deug lan la wara wax nga xamne kon mom laaj bu ko nit mënon laaj ci walu diine yàlla mooy ñëw ne ko kat ñu ngi lay laaj nangam waxal nangam nga xam ne moom li ko yàlla wax loo woon képp la daan wax musul wax lu waroog loolu musul wax lu wuuteeg loolu kon su fekkee ne yéen it da ngeen di wax ne da ngeen di wax ci diine yàlla donte xam nañ ne li nga xam ne moom lañ nekkoon démb ak bërki démb du woon lislaam li ñuy wax ahlu na wala jamaa la woon ni nga xamee ne moom lañ yaataloon ci suñ dëkk yi kem niñ yaatalee chiisme ci yeneen barab yi loolu moo fi waaye yonent bi moom li leer te wóor lu ko nit masalaaj mooy xeetu fatwa yi ngeen def wala xeet yooyu yonent bi moom luñ ko masalaaj yàlla mooy ñëw ne ko ngi lay laaj nangam waxal nangam yàlla mooy naan ko ñu ngi lay laaj nangam waxal nangam kon yéen li ngeen war a def mooy lu leen nit mën laaj ngeen ne lii kat la ci yàlla wax waaye lii la ci diw wax wala lii la ci diw wax wala lii la ci diw wax te diw diw yooyu kum ci mën a doon ku ne diw diw yooyu kum ci mën a doon ku ne moo mindeefu yàlla yépp ñoo bokk yem ci mbir yi ndax kenn ku ci ne xam ngeen ne li ngeen di faral di jàngale ñu koy wax fiq fiq kenn ku ci ne yaa ko mën a xamal sa bopp ci laaj benn masala kuñ ci laaj benn masala soo ne masala bi liyee ci aju keneen mën naa jugee fee na la déet imaam diw tamit moom nee na nangam la ca wax keneen jugee fee na la imaam nangamit nangam la ca wax mën nañu wax lii nga ne ah, lii la ci wax keneen nee na déet waaye Shafii keneen na Shafii lii la ci wax na ne la Hanbal lii la ci wax keneen na la keneen ne la Abu Hanifa lii la ci wax mën nañ laa wax sax Malik lii la ñu la ah ba tey soo demee ci biir am na keneen koo ne ci Malik bokk moom it nee na nangam ngeen xam ne loolu yëpp ay wuute la te jafe-jafe yi nekk ci diine yëpp li jur wax yu nekkul fii jafe-jafe yi nekk ci diine yëpp wuute bi ak xaajaloo bi li ko jur du téere bii moom li ñuy waxta nekkut fii moo jur wuute beeg xaajaloo bi te moo ne kat yàlla moom léegi la ñu topploo topploo wuñu leneen li mu wax ittabihu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min dunihi awliya topp leen li ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay te yàlla moom téere bi képp la leen laaj du leen laaj lan la Malik wax ëllëg du leen laaj lan la Shafihi wax ëllëg du leen laaj lan la Bukhari wax ëllëg du leen laaj lan la Muslim wax ëllëg lan la yàlla wax rek la leen laaj téere bi képp la ngi laaj du leen laaj beneen bu téere beneen bu téere yàlla du ko laaj ëllëg te wuute nga xaajaloo li ko jur mooy li nekkul fii lii moom jurut wuute jurut xaajaloo ndax ci biir yàlla moo ñu xamal ne da koo wàccee wala boobu wàccee wuñ ko lu dul ngir mi leeral wuute wàccee ko lu dul ngir mi leeral wuute wa ma anzalna alayka alkitaaba illa tubayyina lahum alladi ixtalafu fihi waaj na lox yonent bi wàcceewuñ ci yow téere bi lu dul ngir mi leeral wuute yi léegi nag naka la mën a ab naka mën a ñëwee yàlla wàccee ko ci yonent bi ngir mi leeral wuute yi yonent bi bàyyi koo fi ay wuute tàmbali di gën di yaatu ñu dem ba jàpp sax léegi wuute mënta ñàkk dem ba gëm ko te téré bi mom yàlla néna da ko waccé wala bok waccé wuñ ko luddul ngir mi léral wuté ngeen demat fële muy wax ne kaana nas ummatan wahidatan fa baasa allahu annabiyiina mubashirina wa munzirin wa anzala maahum al-kitaba bil bilxaqi li yahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi yal di waxat na batayit téré da ko waccé ngir mi àtte digënté nit ñi li nga xamé dañ ci wuté kon mu doon leer ngeen xam ne kon dëgg-dëgg li ngeen di jàngale mu doon lu wuute mu doon ay wuute loolu diine yàlla wax sa xelaat na wax sa xelaat moo bindoo noonu su dee kenn ku ci ne day ñëw di wax xelaatam nit ku ci ne mën naa am xelaat bu wuuteeg moromam waaye diine nag wax ci xelaat da cee amut diine lan la yàlla wax képp moo ci am amul leneen lu nga xam ne lu la si waay di wax na la wax ne fii la ko yàlla wax nit ki dem xooli ko nga xam ne nit ki yow amoo ci dara lan la yàlla wax ci nàngam ah soo demee ci aaya sàngam kat yàlla nee na fa nàngam jeex na waaye diw nee na diw nee na diw nee te li yàlla wax ñooñu moom ko mën a wax lu mu mënti doon koo mën a wax ku mën a doon laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun ñooñu binduñ dara dañ leen a bind kon kan lañ war a di wax ay waxam kan lañ war di woo ci mbir mu ci ne mooy ki kibind ki bind nag moo wàccee ak gindeem toppuloo ñu ba noppi nañu ku ko topp doo réer te doo texee di ba noppi ne ëllëg nag daf ñu koy laaj ba noppee nañ ko topp te buñ topp dul moom kon jàpp naa ne kooku wàccoo naa ñun li ci des nag yéen seen responsabilité la wax nit ñi dëggug yàlla gi te jëmmi yàlla ji tax su ñeen ci bàyyee tey dinañ leen ci jàpp ëllëg su ñeen ci wanee ginnaaw tey di dinañ ci ànd ak yéen ëllëg ndax dëgg lu mënti xew mooy demee noonu lu ko nit ñi bañ bañ bañ tey su ëllëgee danañ ci dellu ndax dañuy xam ne loolu képp ay jàmm ji ndax ku koy dund jàmm képp ngay am te dund gu noppale ngay am te kenn ku ci ne nag bàyyi xel diggante moom ak boromam xool diggante moom ak boromam ci loola. ndax dëgg ku koy topp toppaloo ko nit sa bopp nga koy toppal sa diggante ak sa borom la yàlla nag mën naa waxloo nit nit ki ñëw wax ko waaye nit ka koy wax ak yow koy déglu yéen a ca bokk yem kenn na ko ci moomut dëgg yàlla képp ko te mbir yi dafa amul concurrence te it du compétition diw moo gën a lii diw moo gën a lii loolu solo si solo si mooy nit ki li muy wax na wax te jëmmi yàlla ji képp tax te sooy wax te jëmmi yàlla képp tax wutoo ci feeñ wutoo ci li ñuy wax ay victoire ak ay maa gagné ak maa daan ak maa liiw loolu amul solo mbir mi du foofu lan la yàlla wax lii la wax nit ki mën a dem topp ko jëriñu ci te jëmmi yàlla ji képp tax keneen ku ko mën a déglu mën ci cee jëriñu ndax dundam a cay defaroo dundam moo cay defaroo te su dundam defaroo dina mën a defar lu ko wër te nit ñi seen dund su defaroo dinañ mën a defar lu leen wër te mën a defar àdduna te yàlla ay waxam suñ ci sukkandikoo suñu dund dana defaru dund société bi dana defar kon képp koo xam ne yàlla féetee na la ci fu mel noona war ngaa bàyyi xel détail yooyu ndax lu mën di xew yonent bi moom waxul woon lu dul li ko yàlla waxloo te képp koo xam ne da ngay wax ne yonent bi nee na war ngaa bàyyi xelati balaa ngaa wax ne yonent bi nee na nga dem vérifier sa bopp ci téere bi yàlla ndax loolu lu ko yàlla wax la wala déet ndax yonent bi li ko yàlla wax mooy inna alayka illa al balaax yow dara waru la lu waaye di wax ne diw nee na yonent bi nee na te diw moom la mu wax ne yonent bee ko wax soo demee ci téere bi yàlla fekk la muy wax mu waroog li yàlla di waxal boppam loolu ku koy def yaa ngi sosal yàlla yàlla du wax mukk ku sosal sama ndaw li muy wax mooy man azlamu mimman iftari ala allahi kadiban ana ku gën a tooñ ki nga xam ne day sosal yàlla ay kàcc te soo demee ci alquran li yàlla wax ne fa lil ladina yaktubuuna alkitaaba bi aydihim thumma yaquluuna haada min indi illahi liyashtaru bihi thamanan qalilan wa waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun di yàlla di wax ne ah maanaam toskare ñeel na ki nga xam ne day bind ab téere ki nga xam ne day bind téere ci loxoom ba noppi di wax ne lii kat ci yàlla la bàyyi ko ngir di ko jaayee njëg gu néew ndax nit ñi dañoo xamul ne nit ki waxtu woo waxee ne lii ci yonent bi la bàyyi ko yaa ngi wax ne ci yàlla la bàyyi ko ndax yonent bi moom jottalikat képp la woon lu mu fi indi rek ci yàlla la ko jële te suñ ne ci yàlla la ko jële mooy kon ci téereb yàlla la ko jële kon lu ñu wax ne yonent bi wax na ko nañ ñu wax fan la ko yàlla wax luñ ñu wax ne yonent bi def na ko nañ ñu wax fan la ko yàlla def loowee te ab aaya bu leer lay doon dañ ñaan loolu fii la ko yàlla def loowee mu doon lu leer ku ne mën koo demal nga xam ne ku ne mën na dem vérifier ko boppam ndax traduction yi bari na lu waaye dégg anglais ak chinois ak lu mën a doon suñ la waxee dara alquran am na ay tradition ci langue yo yëpp kenn ku ci mën ngaa dem vérifier ko sa bopp nga xam ne su boobaa dootoo fa nekk te di wax naan diw nee na waaye danga naan yàlla nee na te barab sàngam la ko wax mu doon lu leer waaye nekk fii di wëlbati ay wax di comme ni maam di di di neexali baata ak def yu ne ngir bëgg saxal lu saxul ku ko ciy defit jafe-jafe rek ngay am ëlëk sa digënté ak sa borom té fi su la yalla mayé guddu fan tuuti waxuma guddu fan tuuti rek so ci saxé yow di nga am jafe-jafe fi ndax nit ñi dañuy yeewu lo fi waxati lu xamné bu da warok li yalla wax dañ la weddi ci jamono joj lañ tollu loolu fi amu ci te jafe-jafe yi ci diiné yépp wax yi nekkul ci téré bi ko jur ta wax yoy nak yéna koy gën di yaatal ta waxtu ta wax yoy dañoo yegg ci ci périmé jarul sonn na wax xeet xeetu lu bokkul fii daa yegg ci périmé ndax soo leen ci at yu mujj yi ñaari at wala ñetti at yu mujj yi ku ci am xel tey seetlu di nga gis ne nit ñi gis-gis yañ amoon ak déggi amoon soppeeku na gëm-gëm yi ñu amoon it soppeeku na lañ leen daan wax dëmb ak ki démb mu leen yëngal yëngalatu leen léegi kenn ku ci ne léegi de wut a wër li gën a wér ndax nit ñi léegi dañoo tàmbali di jëfandikoo seeni xel ci mbir yi kon kum ci mën mënti doon ci yii su bëggee noppalu ne dem dëgmal li yàlla wax su ko deful it jafe-jafe rek lay am te loolu jamono ci tool nag lii nag ak fàttali képp la ngir kenn ku ci ne mën koo bàyyi xel te loolu it yàlla la ku ci jëmul it yaa koy gisal sa bopp. te ku fi nekk di wax yonent bi nee na te la ngay wax vérifié woo ko fan la ko yàlla wax yaa ngi sosal yàlla ci lu amul benn sikki sàkk ñi nga xam ne nag comme ni ñuy wax dañuy wax waaraatekat yeeg imaam yeeg yooyu loolu suñ ko bàyyiwul xel li yàlla wax fee nii wax ne li yaxmilu awzaarahum kaamilatan yowma alxiyaama wa min awzaari alladina yudilluunahum bi gayri hilmin min saa ma yaziruun nga xam ne su boobaa ñoom dañuy gàddu seenub say di gàddu ci sayu ñi nga xam ne dañu leen réeral ci lu dul xam-xam suñ borom tek ci na aka bon lañu gadd su fekke nak ay pexe lañu wuté def ngir bëgg mucc ci mbir yeek yoy seen bop la sonal li yàlla wax rek khad makara alladhina min qablihim fa ata allahu bunyaanahum min alxawaahidi fa kharra alayhim saqfu min fawqihim wa atayhim al azaabu min haythu la yashurun su fekke dañuy bëgg def ay pexe wala nangam ngir bëgg ci génn loolu du soti dëggu yàlla gi da ngeen koy wax mu leer ndax li yàlla di wax fee inna alladina yaktumuuna maa anzalna min albayinati walhude min baadi maa bayyannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaika yalaanuhum allah wa yalaanuhum allahinuun illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawaabu rahim suñ boroom li ñuy wax ne gaa yi nga xam ne dañuy nëbb li ñu wàccee ci ay leeral ak njub ginnaaw biñ ko leeralalee nit ñi ci téere bi suñ borom mu ne ñooñu yàlla rëbb na leen te rëbbkat yépp it rëbb nañu leen lu dul maam maam ba mu des ñi nga xama ne dañoo tuub te yéwénal te leeral te yéwénal te leeral waaye te yéwénal te mu ne ñooñu suñ tuubee yàlla dana leen jéggal nga xam ne dëgg-dëgg mbir moomu foofu rek la nekk kon daal li ci am solo mooy kenn ku ci ne na bàyyi xel lii te lii yemul rek ci ñi ñuy wax waaraate kat ak yi waaye sëriñ seeg ñëpp nga ci biir ndax xaaj yi nga xam ne moo nekk ci diine moo xam dañuy wax ahlu sunna wal jamaa moo xam dañuy wax chia yi moo xam dañuy wax ahlu tasawuf moo xam tarixa yi nga xam ne moo ci nekk ak yëpp kenn ku ci ne xam na ne loolu du njàngaleem yàlla diine benn diine la lislaam la tudd te yàlla dafa tere ñu xaaj diine ji te li mu wax mu leer mooy waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraxu mooy leen ci buumuk yàlla gi te bu leen tàqaliko nit ñi nag ci li ñuy wut a mooy ci buumuk nit ñi diw nee na diw nee na diw nee te yàlla moom ci lim ñu mooyloo mooy ci ak buumam lim ñu mooyloo mooy ci ab téere mu doon lu leer lim ñu mooyloo ba tey mooy ci jëmmam ji lim wax na wa man yaxtasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqimin lim wax ku mooy ci yàlla gindeef ne la jëmale ci yoon wu jub nga xam ne ku ngoy ci yàlla yàlla dina ko gindi ci yoon wu jub fee mu wax ne waatasimu billahi huwa mawleekum fa ni'mal mawle wa ni'mal nasir mooy leen ci yàlla mi nga xam ne moom mooy seen kilifa kon yàlla moom lim ñu war a wax wax nañu ko li ñuy wax ay tarixa wala nangam wala ay ahlu sunna wal jamaa wala lépp luy xeetub xaaj bu nekk ci diine liñ ciy waxit lii la ba tey jamono bi dafa tollu ci lii nit ñi kenn ku ci ne na war a fexe yeewu di jëfandikoo xelam yàlla lu mu xasa a tere wax leer yàlla waxal boppam ne ñi xaaj seen diine ay bokkaalekat lañ ay nit nag bëgg a nekk ay bokkaalekat ba noppi ñu leen di wax naan ay nit yàlla lañoo leen di wutal lu ne ñu leen koy jiiñ te ñoom ñañ koy jiiñ xam nañ ne lañ leen a jiiñ duñ ci dara waaye mbiru àdduna képp tax ñu sax ci loola wala di ragal naan ah ñun kat bëgguñoo mujjee puso bi mu réer wala xeet boobu loolu jafe-jafe kenn ku ci ne na sóor diggante moom ak boromam ndax yàlla li mu wax dafa leer li mu wax ne munibiina ilayhi wattaquuhu wa aqimu salaata wala takunu min al mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون nga xam ne bokkaalekat yi suñ borom moo xam le ne mooy ñi nga xam ne dañoo xaaj seen diine def ko ay xaaj xaaj bu ci ne di namoo la mu yor kon nag li am solo mooy nit ñi nañ bàyyi xel lii yàlla mënul wax ne bu leen def nangam ngeen def ko ba noppi bëgg ci te li am solo mooy ku mën a doon ku nekk cib xaaj bu mu mën a doon la nga nekk mënoo loolu wax nañ ko ay yoonu yoon te loolu loolu jaru sax di baamu ndax ku ne xam na ne daraa ci wérut diine daal benn diine la diine jooju suñ borom kum masa yebal ci yoon woowu képp la la yebaloon yenent yu jiitu yépp suñ borom ci wenn yoon boobu la leen yebaloon ba ci yenent bi nga xam ne message bi mujj di alquran suñ borom moom la ko jox ci yoon woowu képp la ko yebaloon te yoon woowu ba keroog àdduna tukki benn yoon képp lay doon ñun nag li ñuy def lenn la yàlla day ñëw xàll aw yoonam ba noppi ne bu leen tàqali ko ñun ñu ñëw ne ñun diw lañ àndal te diw moom daa xaaj aw yoonam nga xam ne suñu waxee loolu day mel ni ñun dañuy seede ne diw dafa tooñ yàlla te diw it su fekkee ne moo def loolu moom it daa tooñ yàlla donte ñun soo ko soo demee xool ci vidéo set bëriwaa na ku ñuy wax ne daa sos aw yoon soo demee gëstu ko da ngay gis ne moom day wax na sosut moom waaye ñee ñëw ginnaawam ñoom ñoo ñëw di ko moomale aw yoon waaye nit ki suñ waxee ne dafa sos képp ku wax ne nit ki su ne man damaa sosul yoon nit kooku moy na yàlla te ku ànd moom it yaa ngi ànd moom ci moy yàlla mooy gi mooy leen mooy tooñ yàlla gi yàlla moo wax ne wa man yataadda xuduud allahi faqad zalama nafsahu ku jéggi fi yàlla yemale ay mbiram tooñ nga sa bopp yàlla wax ne wa may taadda xudud allahi fa ulaika humu zalimun ñi jéggi fi yàlla yemale ay mbiram tooñ nga ñoon ñooy tooñkat yi te yàlla xam na ne ci alquran ne wal kafiruna humu zalimun way weddi ñooy way tooñ kon nit ki su fekkee da ngaa wax ne man kat sama kilifa daa sasu yoon mooy yaa ngi wax ne kon man sama kilifa tooñ na boppam suma ma ak moom ca loola kon man sama kilifa ay tooñkat lañ mu doon lu leer te ñun ni ñuy doxeek yàlla ku ko doxe woon ak ñun sax duñu neex loolu jamono bu nañu wax ko kenn ku cay na ko natt ci boppam ku ci am sa soxna ku mën a doon ku ne bis set di ko jox sa dépense naan ko toggal nangam su génnee dem ca marché ba dajeeg benn waaye mun a ko toggal nangam su ñëwee moom mu wan ginnaaw yow la nga ko wax togg la ko waajoo ja wax balaa yàgg dara nga lijjanti balaa yàgg dara nga lijjanti te ñun kat noonu la ñuy doxee yàlla jamono bu ne nag yàlla ñu bind moom ñu indi ñu fii am ñoo xam ne dañu ciy doxloo fii ñi ñuy wax naa ñu diw nee nangam diw nee diw na nangam ñu wan ginnaaw la yàlla wax topp la diw yooya wax te ku ci amoon sa soxna kat di ko joxe dépense bi bis bu set nii dem marché saa yoo demee dajeeg benn waay wala ay waay ñu naan ko déet bul togg nangam toggal nangam maam su ñëwee la ko gaa yooyu wax mu togg ko wan ginnaaw yoon li ko wax yaw su ko defee benn yoon ñaar yoon nga lijjanti ko te ñun jamono bu ne noonu la ñuy dundee ak yàlla ndax jamono yi ñu ngi gis seen kilifa yi ci tarixe yi ñu ngi commencé maanaam di soppi discours yi te loolu it jamono ci toll du mbiru soppi discours nañ waxal yàlla te jëmm yàlla ji tax xam ne ne kat lii la yàlla jàngale mu doon lu leer kenn ku ci ne mën a jàll mal yàlla boromam li ñuy wax ne dafa jot sëkk ñu détaché nit ñi ci nit ñi rattaché leen ci yàlla <coughs> mooy dafa mooy dafa jot sëkk ñi tinki nit ñi ci nit ñi ñi nga xam ne dañoo tënk woon ci ñoom tënk leen ci yàlla ba jeex tàkk ndax loolu mooy suñu jàmm ñun mooy jàmm nit ñi it ñoom it seen bopp ku ko ci defut doo am jàmm te ñi ngay àndalit duñu am jàmm loolu loolu coobare yàlla la kon am na ci loo xam ne kenn ku ci ne jëmmi yàlla ji képp la ci war a suur te képp koo xam ne nag dëgg rek a ko ñor dëgg rek a ko ñor liñ wax mu leer dëgg moom yàlla xamle ne ci moom lay bàyyiko kon dëgg moom yàlla xamle ne ci téereem képp lay bàyyiko par parloo nit ku dese mooy nit ku do wax nit ku doyadi nit ku matali mooy par parlo ndax àdduna li lu ñuy lu neex ci par parlo dafee man dama man sa dëgg-dëgg dama koo xam lan mooy intérêt bi par parlo ci loo xam ne yow sa bopp amul la njëriñ loo xam ne yow du la yóbbu fenn yow du la jëriñ yow sa bopp du la jëriñ sa digganteeg sa borom te ki tax ngay parparloo soo demoon sax ba bis penc day wute dañ ci yow te loolu yàllaa koy jàngale istabarra alladina tubihu min alladina tabahu wa raaw al azaba wa taqattaxat bihim al asbaabu su ëllëgee moom day wuta dëñ ci yow te su boobaa yow doo mën a dëñ ca moom ndax weesu na waxaal tabahu la lana karratan na am fa natabarra minhum kama tabarra'u minna te boo fekk na weesu na su boobaa yow li ngay sàkku mooy dellu siwaat ngir yow mën a denc moom fii te fekk na boobu jugee nga fi ba pare te loolu dëgg-dëgg du doxeenu koo xam ne day gëstu dëgg kuy gëstu dëgg moom dëgg rek ko ñor li ñu wax ne nit ki suy gëstu dëgg lu wut a far ci kenn moom ci yàlla képp lay far ndax yàlla moom mooy dëgg moom lu dëppoog li yàlla wax mu jàpp lu waroog li yàlla wax mu sori xam nga du jëmmi nit ñi mooy solo si donte dañuy wax ne réer gi fi ne yëpp looloo ko jur yàlla day jox nit message nit ki ñëw di jottali message nit ñi topp message bi muy nit ka bàyyi jëmmi message bi ci boppam te fekk ne message bi mooy ni jëriñ ndax nit ka moom kuy dee la li yàlla wax walladina tadhuna min dunillahi laa yaxluquuna shay'an wa hum yuxlaquun ba ci yonent bi bindu dara te dañ koo bind yàlla li wax dafa dane ñi ngeen di woo wëli yàlla ñi ngeen di woo ñu yàlla ñi ngeen xam ne kenn génnu ci suñ borom mu ne laa yaxluquuna shay'an binduñu dara waxum wax la xuun dañ leen bind mu teg ci lan amwaatun gayru axyaain dañoo dee nekkuñ ñuy dund yàlla képp muy dund te du dee ku dut moom day dund day dee yàlla amwaatun gayru axyaain dañoo dee nekkuñ ñuy dund waaye waaye sax lam ca teg wama na ay yaana yu bansu ñoom yëguñ sax kañ lañ leen di dekkal kum mën a doon nag ba ci yonent bi sax yëgu yëgul sax kañ lañ koy dekk xëy na yonent bi yàlla da koo setal la ko boromam santoon képp la def ba matee dafa dem ndax li yàlla wax wa muhammadun illa rasulun xadd xalat min xablihi rusulu afa immaata aw xutilan xalabtum ala axaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shakirin nga xam ne yàlla li wax fi amwaatun gayru axyaain ba tey dala koy leeralal fële kii lim ñëwoon di ko def bim matee dafay dee day dem su demee lan moo fi des su dee yàllaa fi des ak lan message ba ko yàlla joxoon it daf fiy des moo tax yàlla loolu lay wax du wax mukk atihu llah wa atihu nabi wa atihu llah wa atihu rasul lay wax topp leen yàlla topp ndaw li mooy kan mooy kii jottali xam nga nit kii suy dund la mën a jottali su dee mënatul a jottali foofu la mbir mi nekk comme yi ñi xamal di ci ñi wax naan ci tarixe ñi wax naan ci misaal ñi wax naan diw nee yonent bi ko feeñu jox ko nangam déedéet yonent bi amul kuy muy feeñu di ko jox nangam yonent bi la ko suñ borom doon joxe la joxe na ko ba muy dund la ko suñ borom doon joxe la joxe na ba muy dund te it matoon na it ba muy dund bim deewee amatul lu muy joxe ndax lu ñuy joxe moo fi amatut la yàlla doon joxe mu ngi fi ki muy yeewate ci loolu la lay yee te sooy wax it munoo wax lu génn loola téere bi ba keroog at na tukki ku wax lu génn téere bii li nga wax wérut ci diine yàlla nag laa waxuma ci ay sunnisme wala ci nangam wala ci nangam waaye ci diine yàlla ba keroog at tukki ku fi wax génn téere bii li nga wax wérut ak kum mën a doon ak téere buñ ko mën a bind kum mën a doon ku wax lu génn téere bii li mu wax wérut yonent bi moom la ko suñ borom doon joxeloo joxe na ko moom ba muy dund moom joxe na ko ba muy dund bi mu fi léegi moom bi mu deewee amatul responsabilité ci dara te moom sax amul woon responsabilité ci nit ñi ndax yàllaa ko ko wax yàlla wax na ko na ko qul yaa ayuha nnaasu xad jaakum alxaqu min rabbikum fa man ihtadi fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha wa ma ana alaykum biwakilin <laughs> moom loolu la wax suñ borom tegu ci lan wattabix maa yuuxee ilayka wasbir xataa yaxkuma allah wa huwa xeyrul yaa yàlla dana ko waxal nit ñi ne leen dëgg ñëw na jugee ci seen borom ma ku ci gindeeku gindeeku lu ci kenn ku boppam ku ci réer réelu réelu ci kenn ku dul boppam man duma seen responsable suñ borom tegal ko ci ne toppal li ñu wax yu mu jëm ci yow te nga muñ maam ba suñ borom teg suñ borom teg ko ci maam te nga muñ ba yàlla di àtte ta maam te ngën ji àttekat yi maam mooy ngën ji àttekat nga xam ne yàlla loolu la waxal bopp waa tabi maa yuuxee ilayka toppal li ñu wax yi mu jëm ci yow loolu la wax yonent bi ginnaaw gi nag lu ci topp wasbir xataa yaxkum allah waaw nga nangu ndogal ba keroog yàlla di àtte te yàlla moo gën ci àttekat yi kon dëgg-dëgg mbir moom foofu rek la nekk kon daal mbir yi dëgg-dëgg lii li nga xam ne moo ci kanam ay leeral la li nga xam ne moo jëm ci wàllu koor dafa ne waxoon nañ ko fi daaw koor gaa ngi jublu si waaye lu jiitu koor ak la ca topp kenn ku ci ne na xam ci lan la war a ne ndax ku nekk ci xaak moo xam ahlu sunna wala jamaa wala chia wala tarixa wala lu mën a doon yàlla sant la yàlla ñi gëm la wax te ñi dafa bokk ci seeni melo ñuy sàmmanteeg fii yàlla la ay mbiram na kenn ku ci ne dem xooli yàlla dafa wax ne na ngeen matal koor gi ba guddi liñ doon wax sànq waaye da ngeen di ñëw fii ci marché bi nit na leen déedéet eh jant bi soo maanaam su jant bi sooyee rek guddi dugg na te ngeen dem ci alquran yàlla yàlla di leen xaajaleel yàlla day wax jant bu so day wax marax li tubaab di wax crépuscule day wax guddi soo leen demee sax ci sootu lin si xaax yi ci ay 17 ci ay 16 da ngeen fay fekk mi leeral loola mooy surat 84 yaakaar naa aaya 16 ak 17 mi wax ne fala uqsimu bi shafaqi wal layli wa ma sax ama si ñaari aay yi toftaloo day tàqale crépuscule mi timis googu ak guddi gi te moom dafa wax na ngeen matal koor gi ba guddi ci julli gi it li leen ci wax même ba ci baat bi wala tajhar bi salaatika wala bi biha ñi leen wax ne loolu ci ñaan la te soo leen demee fële suratul araf aya cinquante cinq lu suñ borom wax udduhu rabbakum tadarruhan wa xufiya nga xam ne loolu day weddi ba tey li ngeen di wax xam ne chaque jour macha allah seen téere yii nga xam ne moo jur taxalikoo beeg xaajaloo beeg lépp li nga xam ne suñ borom da koy tere seen téere yooyu jamono bu ne day ñëw di waroog yàlla te saa yu waroog li yàlla wax la téere ba wax ngeen di jàpp wan ginnaaw li yàlla wax nga xam ne comme li yàlla di wax rek wa ida xiila lahum maza anzala rabbukum ñu ne xaalu asatirul awwalin su suñu leen laajee na leen maanaam suñ suñu leen laajee seen borom lan la wàccee ñu ne suñ borom lim lu wàcce rek naa mooy léebu ñu njëkk ña rek ndax léebu ñu njëkk ña moo ñàkk solo ñàkk solo gu toll ni suñ ko waxee suñ tuddee waxu keneen ngeen mën koo bàyyi xel dem topp waxu keneen kon nag wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla bu baax ñu ngi nuyu bu baax ñëpp di sant ñëpp macha allah jërë ngeen jëf wasalaamualeykum